basumo basumo mbare suko non ko abidje iba famale dia toujours le système ouais qui est en de lutter farouchement face à des misérables ces misérables C'est vraiment misérable, c'est tellement misérable. Avant d'entamer le sujet, vous, diaspora, demain à 13h, place de la République, s'il vous plaît, pour dire non à la France-Afrique. Car les peuples qui ont compris se sont débarrassés de la France. Et je pense que là où nous sommes, Macky Sall réussit chaque jour à dérouter le combat. Un combat qui regarde la nation sénégalaise. Mais Macky Sall réussit toujours à nous montrer que c'est Sonko le combat. Or, actuellement, le combat dépasse largement Sonko. Là, il est en train, à travers ces manipulations comme d'habitude, de mettre mal à l'aise Ousmane Sonko et ses de mettre mal à l'aise vous, les jeunes patriotes. Tout le monde en parle. Dialogue, consultation, beaucoup de mots sont employés. Pourquoi Pour que tout le monde est en train de parler. Ousmane Sonko dialogue Ousmane Sonko dit le colloque Ousmane Sonko ça c'est normal parce que c'est la politique nous sommes dans la politique et pourquoi le système est face à des misérables ils vont réussir à montrer que dans la politique 6 égale à 9 9 égale à 6 or nous le Sénégal on a dépassé largement ça vous n'avez pas compris Le combat que nous menons là, ça dépasse largement largement la personne de Macky ou la personne de Ousmane Sonko, car Macky Sall ne pourra pas organiser des élections cette année. Rien n'est prêt pour préparer des élections, il te faut des années. Rien n'est encore prêt. Rien. Et Macky Sall, il va se la prendre du temps. ou prendre une balle, ce ki fekk que tout le monde perd, ou démissionner, faire un autre. Mais faire une passation de service, ça, ça sera autre chose. Sénégalais, Sénégalaises, bëgg xeex bañ xeex métti métti dañuy mbëkkanteeg Macky Sall tey nee nañu bëreet ñu dóor ay lacrymogène riposté riposté après tekk ndeysaan kilifa gu mag woo ma ne ma prisonniers yi ñu ngi leen di génne euh, boo leen dóoree bu ñu leen jàppaatee seen pen xaw ma noonu demee yaa manif au Sénégal 15 heures pile yéen ñëpp demee bu lacrymogène tàkkee Macky Sall démissionné ñu dëggaat nday dëkk bépp ndax yéen xamu leen fi leen Macky jëmee ñàkk xam fi nga jëm nag dafa metti ci combat bi fu mu toll nii c'est très difficile suñu combat bi parce que combat bi foog nga am hauteur ak degré tuuti d'intellectualisme ak tuuti hauteur pour mën ko gérer parce que xam nga lan mooy danger àdduna ki lay jox ngay wax du équilibré 60 pour cent lay la équilibre am di nekk wala cinq pour cent. mais il n'est jamais équilibré moo tax di xaw a équilibré day neex ci combat kañ laa leen ne dialogue ci jaww ji daaw dialogue ci jaww ji ñu dem ba ci biir am ñu démissionné dem dialogue ci télé bi yéen ñëpp gis te yéen ñëpp ci dialogue ci jaww ji ngeen gisee télé bi ne diw ak diw ak diw dem nañ dialogue ba di leen ko jiiñ ren ñu ne dialogue ñëpp di yuux wóo lu tax dialogue ak ah, Ousmane Sonko joxe na tel gage joxewul tel joxe na tel gage loolu on s'en fout de ces gages parce que le problème là ça ne le regarde pas ku yaakaar ne <coughs> fi réew mi toll nii Ousmane Sonko à la capacité de faire sortir ces prisonniers là da ngay sa bopp de Sénégal moo mag Sonko mag Macky boole leen ñoom ñaar mën leen banku ci gat te duñ ci mun dara kon ñoom ñaar seen dialogue saanu fu au pôle nord dialogue ñu xaw ma dañuy dialogue saanu fu au pôle nord ndax man du ci wax gis nga man waxi jàmbur je me fépp foo mënti dem moo mos a am de waaye dañuy wax ci kaw. di jëf si suuf wax ci kaw jëf si suuf jëf si suuf wax ci kaw loolu c'est la politique kenn mënu si dara waaye protocole Cap Manuel yi est-ce que protocole yi ça a abouti ou ça a été forcé yéen ngeen foog Sonko am na maqaama ne génn leen prisonniers yi ñu xëy di génne nii prisonniers yi en masse quoi yéen ñëpp bëgg wooy wooy gañu nañ gars yi vous êtes méconnaissable de l' état vous êtes méconnaissable de l' état et innocent parfois y trop d' innocence état ñi koy yilif am na concours yoo xam ne ça fait cinq ans concours yi amul woon bi ñu xamee ne Macky Sall day dem lañ tegaat ne concours yëpp day am kon moo lay woon xamu leen état Macky Sall ñi d'accord ak moom ñoo bëri oligarchie yi multinationales yi kalaasu ñoom Idrissa Seck ñoom ñëpp moment yi pare nañu pour Sénégal booy ndax lan Macky Sall daf leen bëgg a jaay dem moom président la am na immunité ndeysaan jël bakkanu Ousmane Sonko exposé ba far yow sa bakkan exposé lii nag boo remonté ci histoire dalay jàngal ci David Dawda yonent yàlla Dawda ak Goliath Dawda bi mu xeexee li muy xeex yëpp ba war a nekk l'élu lan la ko yàlla wax tu ne peux élu moo tax Ousmane Sonko c'est actuellement là C'est le préparateur de l'élu. Mais lui, il ne peut pas être élu. Élection présidentielle, il dit non. non. Il ne peut pas être l'élu. Gouvernement de foot, état boo tilimee mënoo ci dugg mënoo exercer dara lu jëm ci état parce que ñàkk xam politique fi waa Sénégal teg politique moo tax xamuñu état ku tilim état tilimul état est tout sauf bu doon état dafa sale bul xatab du samp état islamique mu dox ba yéen ñëpp di ko def royukaay ba tey suñu grand bu baax bi Cheikh Omar Diagne nañ ko grand xam-xam génn di ngeen dégg ci loxo bu tilim du ci dugg état lu tilim du ci dugg Dawda lan la ko yàlla waxoon tu ne peux pas mais bi ñu tolloo ba war dajale kan moo ñëw Salomon moo ñëw bi ñu tolloo ba rassemblage ma kan moo ñëw Jésus Christ pourtant di woon Dawda parce que Dawda dafa taxoon il avait eu trop de sang ur ses mains xam nga lan mooy trop de sang sur ses mains nit ñi wóolu nañ Dawda topp nañ Dawda Goliath mu ngi leen di rey moom mooy Ousmane Sonko moo tax problème Ousmane Sonko mag yi mosuma ko nangu dem leen samay laaf yëpp mosuma nangu ne Moussa Firi aw na dama ne teg war naa su problème bii du Moussa ak Firi aw na parce que Ousmane Sonko tant que nit ñu ngi xeex moom si yonent yàlla daw da laa koy teg tant que ñu ngi xeex deram day takk parce que lu fi dee gis nga tufli yooyu tufli yooyu mooy dem ba yàlla da dugal kaso pour raxas la bu la raxasee nag yow yaay préparé élu donc Ousmane Sonko mooy joxoñ ki war a falu ak ku mu mënti doon tey bu fekkee militaire a falu si intérêt Ousmane Sonko lay falu bu fekkee civil a falu ci intérêt Ousmane Sonko lay falu <laughs> kooku kan la ko yàlla mayoon yonent yàlla Dawda bi ko Goliath bëggee tuumaal mais moom il n'était l'élu donc nag qui sera l'élu pour am élu nag ni ñu defoon goliyaat lañ koy def de Ousmane Sonko Dawda Macky Sall Goliath ni ñu mujjee malgré Dawda ses maigres moyens rayul nday Goliath Macky Sall buñ ko rayulee élection du am xam naa lu may wax waxantuwuma jël na ay disposition am yëpp jël dispositif yëpp teg lépp pour que élection li ma leen waxoon démb laa ni wax tey voté na projet de loi bu deux ans bu ko neexee def ni Denis Sassou Nguesso bu ko neexee def ni Paul Biya moment yi moom lay neex rek neexatul sénégalais yi de nay leer xeex leen ngeen ne Macky day dem élection dem leen campagne dem leen campagne man ne woon naa leen buñ naree campagne ba campagne li gars yi waxoon si suuf mooy le 2 mars la ñu waroon def premier tour le cinq deuxième tour mais Macky daf leen ne defu ko il a été clair ne defu ko. ñu leen conseil constitutionnel wax na ba pare kenn du ma imposer nag léegi moom dinañ ko bàyyi mu demee dalam. pour te montrer la psychologie de Macky Sall comment il est orgueilleux jikko seytaan bi nu ko duggee démb kilifa gi ko woo dafa am gàcce ba moo ma doon tere saaga de daf ma mujjee naan ma kii loo xorom ndeyam rek xeeb kii daal daf ma jaaxal ma ne ko ah yaa ngi doog a comprendre faire mu naan ma mais kii du nit ma ne ko voilà <coughs> organiser l'élection yi balaa le deux pour sa jàmmale la pour sa luy mun a déedéet conseil constitutionnel wax na ba pare ah, man léegi nag foog ngeen jàmmal ma tuuti nag je vais réfléchir léegi maanaam Sénégal ñun 17 millions ci réflexion ci code 250 grammes bu Macky Sall ci vision 250 tam ci xelam moom ci cerveau Macky Sall tey la ñu war tey basé wu tey pour xaar élection quoi ñun ñëpp ñun Sénégal. te noonu la fa nar demee parce que Moussa Fall nee na ko bougé wul Moussa Fall moom yaay tey clair net. te boo leen déggee Macky dee na Moussa Fall rendi ndayam maa leen wax lii tey le 2 avril bu cool cool naree am Macky Sall nar leen sakke Moussa Fall rendi ndayam militaire la intérêt da ko dab rek mais senegal moom bu dara jotee bi du Sénégal day rendi nday Macky moo pare nag def ay bavure am taxaw di leen xool force occulte yi ñu doon wax ana force occulte yi boo leen xamoon liy ñëw Macky Sall mu ngi libéré force occulte yëpp <laughs> ni ko américain ne waaye say force occulte kan moo si mos a def attentat gars yi wër ay enquête ba sonn gis na force maa xam nga ne lii États-Unis mu ngi depuis deux ans si enquête force occulte Macky Sall yi gisul dara ñun nag Sénégal suñuy commissaire suñuy police suñuy enquêteur suñuy OPC c'est honteux ay OPJ yuy bind ay PV yoo xam da ngay dem ba tubaab hey tubaab moo la naan li nga def mënul nekk. Sénégal est-ce que suñuy homme de tenue mérité ti nañ sol tenue quoi moi j'ai problème parce que gars ñu ngi naan juge Mamadou Seck juge maa xam Diallo waaw mais kan moo bind ndey PV bi PV bi mais ci brigade gendarmerie la jógee commissariat police la jógee kon booy wër bataar ak doomeram ñoom ngay wëri. OPJ yi ngay wëri officier de police judiciaire yeeg inspecteurs yi yéen ñii di signé PV yéen ay ay doome xaram man fa laay waxee chaque jour c'est ëllëg doobaram ñoom ñoo doomu cottu ndey mi yéen man moom je vous regarde froidement quand je dis certaines choses OPJ yooyu ay doomeram yéen ñi war transmettre loolu mu yëg mu yëg mu leer la ne seen diggante ak seen borom da ngeen ni fen parce que kan moo leen jox ordre yow OPJ taal trois femmes quatre femmes ministre bi lay jox ordre day jiitu ñu koy kat si bun yaa léegi yow nga ne yow yaa bugg a nekk yow ministre bi yow góor te ministre bi fen loola si sa aqulaay tàlla ak sa toni combat bi tànk que dëgguñu ndey kër policier yi ak kër gendarme yi taal seen ndey doog a taal ndeyu kër lépp luy français combat bi du dem man dama xam lu may combat de trois ans d'affilée maa leen ko wax commissaire yi si koñ gi inspecteur OPJ yi si koñ gi brigadier yi si koñ gi gendarme yi si koñ gi ñu ndaw ndawaan yi si koñ gi boolekat yi si koñ gi ASP yi si koñ gi ñoo daq dul ci génération bu yàlla sàkk Sonko ñooñu moom bés boo faloo ASP la ñuy njëkk dëgg ndeyam jël leen dugal leen police ñu si mënul jàng ñu ñëpp seen ndey ci biti dul rek la ñuy def si dëkk bi foog ñu jël ñooñu def leen ay segment ñu ngi saaga justice rek mais saaga justice bi chaîne la manifestation amul rey nañ ci ay nit wooy Macky Sall rey mais déedéet chaîne moo rey c'est une chaîne et le préfet loo xam da nga ko war déclarer manifester préfet na la amu benn moor am ñu ne Ousmane Sonko mooy responsable waa léegi et le préfet gars yi benn préfet du mucc ndayem tuuru préfet yi mos a jaar Dakar tuuru préfet yi nga xam ne ñoo fi nekkoon bi ñuy deele ñooñu nañu génn taxaw am na yonent yoo xam ne bi ñu ñëwee dañoo def règlement de compte des fois il le faut Mahdi bu ñuy day def règlement de compte ñun Sénégal fa ñu toll suñu peuple fa la toll nii bu ñu ñëwee nii fokk règlement de compte bu armée jëlee ci la règlement de compte bi di gën a gaaw ndax boobu da ngay dugg kër yi ren di ndeyam vite fait romb ko dem effacé su boobaa dañuy effacé rek dëcc yi bëri waaw ñuy effacé day gaaw gendarme Mbaye Niang gi il n'a plus le droit de vivre. Moustapha Diakhaté waratul dund gis gëñ gëñ nga dafa am ñenn ñi da nga koy décider jeunesse yéen foog ngeen gis nga ñoom ni ñu leen di rayee nii froidement taxaw assumé ko yéen it foog ngeen xool leen ci bët ne amoo droit dund jëfee ko cottu ndem dinaa ñibbisi si Sénégal dóor nday mission yooyu barki sëñ Bamba daa ñoo xam ne ils n'ont plus le droit à la vie Moustapha Diakhaté dégg ngeen li muy kooku pour nga ko fi bàyyi muy respirer ba tey te otom du romb ngeen kattatinteyim ay café Touba ba oto bi saxaar mu dee ci biir xam yàlla jël yóbbu safara Moustapha Diakhaté pour lan muy dund ba tey yenn senegal ay maître El Hadj Diouf di jëfru di dund ba tey li tey bu doon tey dëkku naar yi wala tey ay Mexique bii heure waxatuñ ko faxas oh oh, oh, oh. Oh, sama père bi décédé na père Siyaar ma ñàkk sama ndey moom naan booy faxas ko faxas ko faxas ko coccun tey buñ la rombee autoroute bu ma dëggee sa ndey ak oto bi dañ lay dëj barki sëñ Bamba dañ lay dëj ñu ne mbëkk nañ ko dem nañ fekk dëgg naa sa ndey bu yàgg dem sama yoon barki señ Bamba ñun noonu lañ doon joobee job yi set wecc mais léegi ñit day taxaw yéen di leen saaga ndey ci télé yeeg si rajo yi ngeen gérer ko ko ñu bëgg a dem àjjana duñu yore réew réew ku faalewul safara ak àjjana moo koy yor koo xam ku fu nekk cinquante cinquante ngay am foo gestu gis waa safara boo gestoo gis waa àjjana koo koy mën yor réew réew kuy calculer lu ma yàlla lu ma yàlla réserver te mosoo gis ku fa dem du ko yor réew sama boy bu sadik bii ñu naan mu sonko sonko man biñ may wax jikko sadiku Basiru Jomaay Fay ba tey ne mu du baal bu ñëwee dina régler lii dina régler lii laa leen ne merci beaucoup kon nag fexe leen tam ba bu Sonko nekk ndeyu candidat moom na dem noppalu ji xaar Ousmane yow génn si lii def va booy dialogue ak boo dul dialogue ba le passé bi nga ne doo dialogue ñëpp ne da ngay jot ñëpp la jiñ jàmm ñëpp la jiñ na nga réew ñëpp ne woon yow laa yee ñitu fitna tey nag sa yoon nekku ci yeewoo ñitu fitna yaa xam looy wax mais yow retiré wul ñoom Moussa Fall li ñuy bañ dégg. gaa yëpp li ñuy daw dégg mooy booy bi bas noo imposé imposé le bas quel que soit le prix à payer imposé bas ñu dëggal ko le 2 avril ñu dëgg nday Macky jëlee ko fi c'est simple le 2 avril moom bu ñu forcé day tëb te balaa la 2 avril da ngay tëb suba tey prix taal ngeen lacrymogène détenu politique yi ngeen doon génnee moo tax ñu freiné booy yi te heureusement a avait une très bonne coordination tey waaw tey félicitation sama boy yi parce que tey gis naa tak tak tak man leen nii ci terrain bi ñu fekk leen fa ne leen waaw parce que tam prisonnier yaa ngi génn c'est vrai buñ jaxasee carte gi c'est à des risques et périls tam waaw tey moom piège la ñu tegal sur la table parce que suñu opération secteur yooyu la léegi nag li ma wax de kër këroo kër këraanoo mooy opération yi si topp kër këroo kër kër këraanoo bu dëkk bi di tàkk yuuxu dina jib fu ñu fogewul Macky dañ la koy ñaan doo organiser ren doo organiser déwén mais sa bakkan mu ngi ci xottu gerte boo organiser ñu rey la boo organiser wul tubaab mbamb la <laughs> léegi nag yaa ngi ci digg bi Macky Sall dugal nga sa bopp loo xamul boo organiser moom li man leer ba leer. di nga yokk si boo organiser tes fiches Macky Sall bu organiser élection yi nii nii nii il est fichu biir Sénégal la ko ay généraux di dëgg ndayam bal moom xam ne bu baax li muy def bu organiser élection ñu ray ndayam te yaa doon jaay góor ne fii nga jëm léegi yegg si nga noo organise les élections Macky bu ko organiser ah xanaa États-Unis ñëw andil ko ay jiyaay ñu renforcer sécurité am wër Macky Sall fii ba le deux ñu xam ne maanaam ay ñoom Moussa Fall ak yenn généraux yi duñ ko jege. mais am na ñenn ñoo xam buñ jegee Macky Sall mama bii mu nar leen sacrifier tayle leen ci loxo bo yii ñu rendi ndeyam jaxase ndey réew mi kon Macky keroog bi muy wax naan leen ay da ngeen di ñëw jaj dialogue eh? moom moo bëgg nday jaloog te kenn waxu ko mu dialogue ak ñun xam nga kuñ ko wax mu dialogal administration ñoom commissariat ñoom ñoom Sénat ñoom commissaire Arouna ñooñu lañ ko wax bu dialoguel paa vous les politiciens ni vous les candidats bii nag décidé na ko tey candidats yi dina leen woo ndax woo na ñi nga xam ne dañ leen rëkkale ba pare léegi candidats yi dina leen woo pour guddal ko dina la woo candidat yëpp ne consultation bu paree consultation guddal ne léegi politiciens yi parti politique yi foog ñu daje décider waat ci modalité élection yi parenage beeg yooyu maanaam kon Macky xam ngeen ne jógee fi dëgg ndeyam à partir du 2 moo ko fi jëlee dëgg ndeyam à partir de demi moo ko fiy jëlee chaque ajuma ñu tegal ko sañ-sañ man moom xeex bi xeex bi moom bu makki Sall moom naree dund organiser élection di nooy ngeen ni xam élection du ma sax wax ndax man Macky laa bëggatul gis. Macky sur terre muy dox ñu ne jóge na Sénégal il vit loolu ñun suñu defet la ñun sénégalais ñun suñu defet la. prisonniers yi nag ñu ngi doon wax doo wax si man eh dem leen ceene récupérer dañuy dëggaat nday dëkk bi ngeen duggaat nday ci rang yi fii dañuy xeex talaguñu yërëm kenn talaguñu kenn ku souffrir am na ñu ñu suul nday seen doom ñi seen doom yi jur nañ doom kuñ ci libéré. waa axlu sama yoon nekku ci woon yaa ngeen woon ci biir yéen moom baal la ñu àq nag seen yoon nekku ci woon mais waa axlu patriote soyez prêts soyez prêts soyez prêts xam ne dañuy raagaat kii si combat ngeen jëm direct ndax élection du am bu fekkee nag politicien bu fi mën a dialoguer nag ne Macky mën na reporter élection yi ba le 15 wala ba deux ans lu leer laa wax militaire yi dëgg sa nday loolu du dem ak koo mënti doon bu dee Sonko di da ngay jël bu dee Macky da ngay jël avertir naa politiciens yëpp nañ leer nañ man nag armée def transition moo ma gënal téeméer yoon civil yi def transition loolu du ma ko sax caaxaane transition civile moom jamais de la vie transition militaire oui mais di d'union nationale à partir du 2 avril yéen ñëpp foog ngeen booloo di duul di duul te ñu rey nday booy yi ba pare foog ngeen booloo di duul di duul ba décembre ngeen di duulaat di duulaat te naan ay opposant ngeen Il n'y a que trois partis d'opposition qui doivent aller aux élections. Tous les 17 autres, ce n'est pas pour nous. loolu ñu yëgul woon ñeneen ñiy simile yëpp di <laughs> maslaa ni bokk ñu ndey balaa ngeen ko doon xam tey deuxième tour am lakk ndey édifice France yëpp jot na lakk ndey drapeau France yëpp jot na manifestation bii bii di ñëw foog mu virulent am violence bu inouïe Macky Sall xam ne ñoo ko gën a violent ndax fa la jëm li si kanam nag rawiti gët basumo basuma mbare su ko non ko abidé iba faamale jaa rey nday Macky Sall doy na jaamu yàlla ndax gàllaaj la